gis fi tiis. Euh, gis fi naqar euh, boo xam ni wax dëgg yàlla métti na torop torop torop gërëm le maire de la commune de Thiès Nord du jaxate nga xam ni moom laa fi fekk vraiment mu dalal ma expliquer ma jafe-jafe yi fi am yëpp ak commerçant yi président euh, Thierno Ciss tablier yi ak suñu yaay yi fi nekk yëpp vraiment koo ci déglu rek sa xol day jeex parce que wax dëgg yàlla am sa alal yoo yoo xam ne yaa ko ñaqal sa bopp yoo xam ni jamono jafe na trop surtout tablier jeunes yi tout ça jamono jafe na trop mais bu ñu xëyee nekk ci di ci daw dépense yor ci seen i njaboot nga xëy xëy euh, mu takk ah mais metti na trop vraiment jafe vraiment métti na naqar la euh, tis la bu bu méttee métti xanaa di leen masaw rek di leen masaw waaw parce que euh, aji gëm ji moom lu dal rek lu mu métti métti dañ ko naan mu muñ waaw mais bu muñ amet Euh, ñun euh, kemtalaay suñu kàttan fu mu toll ci xam-xam euh, ci lijjanti ci ci réseau dinañu ko mobiliser pour ñi nga xamante ni ñoom la tiis bi dal ci seen kaw pour ñu taxaw ci seen wet jàppale leen en tout cas mën naa wax maire de la commune de Thiès Nord que ni maire de la ville bi nga xam ne moom laa jiite incha allah dinañu dégager une enveloppe mhm. boo xam ni dinañ ko jàppale ñi nga xamante ni ñoom la tiis bi gën a laal ci seen kaw waaw donc est-ce que dañ koy jagleel tablier yi rek na um, leneen lay doon loolu ay waxtaan moo koy indi. Euh, donc parce que wax dëgg yàlla bi may ñëw euh, li ma gis xalaatuma ko woon ci yàqute. waaw yàqu ma woon nii yaakaaruma woon nii yegg si na fii. waaw yegg siwu fii moo tax foog ma ñibbi waat kër ga ak sumay service euh, xool par rapport yan possibilité la ñu la am réellement. lu ma ñëw rek en en wax leen ay chiffres déedéet mais dama bëgg lépp lu ma leen di waxee aussi mu nekk loo xamante ni dinaa ko def. Mm-hmm. Eh, carrément moo tax mais suma delloo bureau ak suma administration dinaa ci liggéey yaakaar naa ni dinañu leen jàppale. waaw en terme de subvention incha allah ci ñi nga xamante ni yàqule nañu fi li ci des nag euh, modernisation euh, marché bi la ah am na ci loo xamante ni moom maire rek mënu ko dëgg yàlla dina ci néew doole. li xew ci marché bi boo fi rombee nga gis ko boo ko ko bëggee teg da nga koy teg toor hmm, amul police municipale dooleem néew na ci am na fi préfet bu fi newoon sax jéemoon ko organiser mais dafa dem ba ci biir mu xam ni mbir mi du sotteewul noonu yombewul noonu donc lu ñu mën mooy ku ci ñi ci am responsabilité tàmbali ci gouverneur ci préfet moom monsieur le maire ak ñu nit ñu taxaw ci suñu wet am ci ci jàppale ko rek ma laaj benn question ni ma lan mooy responsabilité directement mairie bi mairie de la ville wax dëgg yàlla responsabilité xaw na am na ci ay limites euh, ci fi ñu toll parce que le véritable patron <laughs> du marché moo nekk nii <laughs> mon frère Mamadou Diakhaté donc moom laa doon wax léegi mais am na benn rapport de l'IGE bu ñëw sur rapport bi li muy wax mooy ci marché central gestion bi ak marché central ni mu stratégique amee doole ci biir Thiès yu xolu cees gestion boobu war nañ ci delloo si mairie de la ville à côté de maire commune Thiès Nord mu jàppale ko waxul da ciy génne Thiès Nord pour waxul loolu daf ni gestion bi nañ ci delloo si mairie de la ville mu jàppale euh, mairie Thiès Nord parce que gestion bi dis na rapport bi avancé na sax ay taux kon lu mu néew néew 40 pour cent 50 pour cent donc loolu peut-être ay waxtaan mën na ko maye walla bu loolu amul it ñun suñu jàppalee en tant que maire de la ville ci wetu Thiès mairie Thiès Nord en tout cas dara du ci ci du ci génn loolu moo ci am solo et incha allah di sant ñëpp di di gërëm ñëpp.